asalaamaaleykum mbokki DNT TV cher internaute nuyu nañ leen tey euh, lu muy affaire bi nga na sax dëkk bi mais bëri ko ci xam. TV ñoo pour leeral leen lépp temps yëpp ñu ngi dégg ñuy wax femme bu nekk balcon au niveau du troisième étage ci c'est bizarre ñëpp ñu ngi poser la question à savoir nan la femme bi femme mère la ki ñu gis ci image yi nan la def ba troisième étage balcon fan la aw nit question nan la def ba yéeg ak la aw. te li si gën a yéeme a image que début bi mère bi dafa defoon benn genre téere si bopp bi téere bi bu ngeen xoolee bu baax téere bi dafa mel luy tàkk kenn xamul la aussi avant sa pari di ñëw téere bi disparaître na mu téere bi nekkatul téere léegi mu sóor la bi mu nekkee ci kaw takkul dara si baat bi au niveau du cou takkul dara càkk ni chien mais biñ ko wàcceewee dañu gis ne que carrément mère dafa takk càkk comme càkk yu bébé yi comme bébé ni takk seen baat yi comprendre ngeen moom la takk mu ngi nii di dem mu ngi nii waa te li ci gën a yéemee ci li gën a doy wax ci vidéo yi mooy que mère bi ba mu nekkee si balcon bi mère la carrément ko xool xam ne mère la carrément mais bi ko euh, sapeur yi wàcceewee dañu gis ne que nekkul genre mairie boobu dafa gën a nekkaat xale te ñu ngi dégg bi ñu koy wàccee ci escalier yi ñu ngi dégg am na benn sapeur bu xees mu ngi ko naan xamante nañ xamante nañ lan moo tax nga bàyyi sa njaboot wax ma ban xale nga ñëw di jël si ban xale ngay jël si looy def fii mu nekk lu doy waar nit ñi nag ñëpp a ngi laajte di laaj ba xam kii nit normal la wala dafa am problème mu xel comme ni ñu koy waxee même bu amee problème mu xel sax.